waa salaamaaleykum mbokk yi yéen safoo la chaîne Digital Rio Plus tey jii ginnaaw match Sénégal bi ñu weesu ni ñu doon ñu si 2-0 ñu ñëwoon fii rek defal leen benn euh, débriefing bu ndaw rek après match bi ñu xool suma invité yi gars yi toog nii leen laaj rek ñoom ah, nan lañ gisee match bi yan faayet lañ ci gis. waaw Seydina Ousmane ñu ngi lay delloo nio bi di ziar ñëpp ñu fi teew di delloo njukkal aussi waa Rio Plus ndax ñu ngi gis seen liggéey rafet na trop macha allah. Mhm. tey nag euh, match bi comme ni ko sénégalais yëpp gisee laa gisee ndax euh, coupe du monde compétition bu ndaw mhm. te équipe booy football ak moom da nga koy respecté. Mhm. te coach aussi Sénégal lañ ne Sénégal ñëpp ay coach lañ. waaw coach bu ñu am dafa dëgër bopp benn côté mën nañu waxee noonu quoi. parce que yow ngay football ak dëkk bu mel ni Pays-Bas amoo si milieu terrain bi kenn ku war a mën a animer jeu bi. loolu ban usine ngay xaar match nul nga bëgg. Mhm. match nul boo ko bëggee dangay ngay football mais taxaw di xaar fii équipe boo fi taxaw di xaar football dépassé na niveau boobu noonu boo taxawee di xaar par force da ngay jël boo teelul jël rek yéex a jël te teel a jël bi sax mooy tane. Mhm. ndax boo xoolee changement yi changement yi gars yi ñu ngi doon xaar ay parties. Mhm. mu indi Pape Gueye baax na trop mais Pape Gueye Pape Gueye dafa lan te Bamba aussi mun na football kenn weddiwu ko am na force de frappe mais si défense su Hollande bi Bamba Dieng mënu fa feeñ. Mhm. parce que taille bi mu yor moo tax te foofu noonu ay gens ñoo fa nekk. moom dafa leer moom. raan nga. Mhm. match bi nag du déception ndax gars yi wane nañ seen bopp mooy nañ la mayo xam nga wane nañ ni saajo maane rek nekkul équipe bi fi am na yeneen saajo maane yu fi nekk nañu gën a dolli xam nga. mooy loolu coach bi aussi di déglu sénégalais yi ndax si lañ bokk ok. loolu sur le plan sur le milieu terrain bi gis nañ ni euh, fight am na fa quoi parce que dañoo gis ne à chaque fois comme ni ko sama sama waa ji waxee léegi nii moom boo xoolee ñëwaat na ci milieu bi Ibou tamit boo xoolee ñëwaat na ci milieu bi nee nañ ni à chaque fois milieu terrain bi tey dañoo ñëw pour défendre te tey jii nii comme ni mu ko waxee la meilleure euh, façon de défendre c'est d'attaquer. kon tey ji waru mën a ñëw rek mu indi 3000 terrain yëpp aligné leen taxaw amul jeu amul dara man pour man place su maane comme ni ko gars yi doon sóoree man neboon naa benn instant yaakaaroon ni du sax feeñ parce que am nañ koo xam ne nii buñ mënul wax ni Sadio Mané la pour cent mën nañ ne 90 pour cent wala 70 pour cent kon lan moo tax tey jii nii question boobu la Sénégalais yëpp di laaj lan moo tax dugalu ko kon léegi yow lan nga siy wax tey jii. non kooku dafa waroon football ndax euh, Sénégal ñëpp ñu ngi doon xaar Iliman Ndiaye. ça fait l'occasion mu ñëw wane moom mooy kan ndax joueur boo ko mayul chance am doo xam lan la mën ak ban côté la mënee ak niveau fan la toll mhm. loolu noonu gars yi ñu ko doon xaar lu nekkoon logique lu nekkoon yoon mooy mu fubaloo ko place Sadio Mané mhm. Ismaïla Sarr mënoon na ko bàyyi côté bële na lay arrière Crépin mhm. ndax loolu noonu mooy logique gu football dafa am yoon football làkk la ku ko déggul mënoo wax côté boobu noonu moom moo tax ko foog muy déglu sénégalais yi ñoom ñu ngi suivre comme moom ni muy suivre gars yi noonu la ñuy suivre peut-être daf ñu ëpp responsabilité gën ñu positionné position boo xamante ni mun na wax gars yi déglu ko ndax dernier mot bi moom lay revenir à chaque fois mhm. mais Elimane Ndiaye li mu ko fuballoowul erreur la te sa te Aliou Cissé aussi bu mu fàtte Aliou Cissé musul gagné match Sénégal Sénégal xam nga kan moo doon gagné match yi Sadio Mané Sadio Mané tey dafa toog hmm? gis nga tey ni mu demee Sénégal gañ la gëj am défaite Mm-hmm. yàgg na. waaw boo xoolee coupe du monde yi. Mm-hmm. mës a dem yëpp. Sénégal gën na am defet match gis ak yoon. Mm-hmm. na am defet match nul victoire. victoire. gëj na ñu dóor te en plus sax même même score bi sax 2-0. waaw. 2-0 dafa ëpp see mel Sénégal. du yoon te te moom mooy li ma la doon wax sànq xam nga ñu ngi ñu ngi jotee la faute am Mendy. mais Mendy bu ñu ko jotee faute. parce que Mendy def naa li nga xam ne moom la waroon a def. foofu boo xoolee. maanaam tey jii erreur de coaching la kii wax na ko léegi erreur de coaching tey moo ñu sonal te tey doo am amoo amoo amoo sentinelle tey Gana Gueye Gana Gueye benn instant dafa yéex. milieu amul ko animé te rôle rôle bi nga xamante moom lañ ko jox pour mu jouer ko tey mais mënu ko tey kii mu waroon a def tey mooy soit mu jël Gana ax Nampalis wala mu jël Nampalis ak Kouyaté jël ku mel ni Pape Matar Sarr tey wala Crépin Diatta indi ko si digg bi. xam li ma la ñu mën a animer bi am kuy passe parce que mënoo teg 4-3-3 ba pare amoo kuy passe say joueurs excentré amul ku leen di passe waaw foofu noonu maanaam bi mu bi mu bi mu gisee classement Hollande bi rek dafa waroon a changer 4-3-3 bi parce que c' était pas à lui d' attaquer moom nekkul yi c' de pas à lui d' attaquer te tey li ñu gagné nii nii nii boo xoolee tey ñi mën naa ne à 62 pour cent moom fautam la moom ak Aliou fautam la. tey jii boo xoolee ñëpp nee nañ erreur coaching lañ ñu lañ ñu gagné quoi parce que boo xoolee eh, hollandais yi ñoom dañoo ñëw dangay yaakaar ni sax ñoom dañoo ñëw teg benn cinq défenseur taxaw di la xaar parce que nii ñi demee noonu la ñuy ñëwaatee te tey jii nii yow amoo amoo loo xam ne nii eh, équipe boo xam ne yow dinañ passe ay attaquant quoi ñi ñu war a ñu war a def le dernier mot quoi. loolu aussi am na ndax euh, sénégalais pratiquement même chose la ñu wax te ñëpp mënuñ bokk tamit wax loo xamante ni nekkul du dëgg mm-hmm. ndax Hollande ñoom ñoo ñu ëpp ay joueurs de qualité ndax ñoom ñoom joueurs yu ñu am yëpp presque ñoom ñëpp ay joueurs de qualité lañ peut-être ñii dañuy gën a siiw ñii ñi ëpp cote ñii mais ñooñu dañoo ñoo taxaw déglu la xool li nga indi xam ne li nga indi nii gañaw leen mm-hmm. ñu taxaw épuisé la épuisé la ba fin temps soog laa def liñ lay def daa affaire yoo xamante ni coach moo koy gagné te Aliou Cissé tollatul fu ñu naan ki amul expérience Aliou Cissé lan la footballul. waaw Aliou Cissé mondial 2002 dem na. mondial 2018 dem na. mondial 2022 mu dem kooku du expérience moo ko manqué. ñaata yoon la fi dem Coupe d'Afrique. kooku du expérience moo ko manqué. Mm. xam la moo ko lan la war a def. Hmm? di concerté wu à chaque à chaque fois ak staffam di xoolaale tamit point de vue sénégalais yi. Mm. ndax euh, sénégalais manqué na Sénégal manqué na lépp. ba mu des ay amateur football gars yi championnat yëpp la ñuy seetaan moo tax bu ñu la nee joueur diw. Mhm. ne la joueur diw. Hmm? bàyyil xel si li ñu lay wax. à chaque fois man message boobu noonu dama koy lancer directement. non loolu mooy yoon sax parce que tamit boo xoolee li nga wax léegi nii pour confirmer ko boo jëlee kaaw Elimane Ndiaye Elimane Ndiaye boo xoolee mais match yu mu mujjee football yëpp ah mais nga di match la def. Mhm. fu mu toll nii mu ngi ci forme da koy dugal. Jacobs tey boo xoolee daa ñëw rek adapté. lu la wan parce que maanaam mu ngi ci championnat am te mu ngi football normal loolu kese la en tout cas yii moom yii di ñëw moom nañ ñu aider quoi nañ ñu aider tegal ñu classement bu baax suñu équipe baax na suñu équipe baax na maanaam fi ñuy séntu moom maanaam nañ fa àgg au moins nañ jël deuxième final lay nekk waa parce que Équateur Hollande boo moytu Hollande da koy dóor waaw nañ fexe daal gagné Qatar bi ñuy ñëw ñu jéem a gagné Équateur jéem a jël au moins deuxième waaw. waaw gars yi kon di leen bàyyi rek ngeen wax seen mot de comme que émission bi ñu waajal jeex di leen wax rek tey jii la ngeen di wax sénégalais yi ci match bi ñu jëmaat incha allahu rabbi. waaw on a une équipe am nañ équipe bu baax waaw nañu gëm rek gën a ñaan aussi te bu ñu teel a bàyyi bu ñu teel a bàyyi ndax gars yi wane nañ jëm fulla ak fayda yàlla baax na daal en tout cas. bon mën de li may wax mooy lenn rek mooy gars yi nañ gën a pousse équipe bi waaw nañ ñëpp ut maillot ñëpp sol ko. ku si ne maanaam fu ñu tourné nañ xam ne ñii ñu ngi si ginnaaw équipe nationale. ndaxte loolu aussi dafa am lu muy def si ñoom. te bon comme ni ko Mbagnick waxee sànq si kaawu Sadio Mané man sama me dis que nul n'est indispensable. waaw ku si nekk rek na nekk maanaam man mii maay Sadio maane équipe bi loolu kese la quoi te aussi di ñaan yàlla aussi yàlla may ñu match yu ñu jëm yëpp ñoo am si ndam waaw kon gars yi rek yéen a ko gisandoo nii lañ fi indiloon tey jii nii après match Sénégal bi di ñaan rek di remercier suñu sponsor yi nga xam ni ñoom ñoo fi teew su mel ni MBS di remercier Ra di sama caméraman bi Max di leen remercier di leen jaajëfal di leen jox di daje vendredi incha allah ñu indilaatal leen beneen point incha allah jaajëf.